Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. di Diazou. Sista Eva. tey euh, lu xew ci kaw teef bi. waaw kawteef bi mbokk yi bi ñu ginnaaw bi ñu leen nuyuwaatee bu baax a baax euh, di leen wax rek dal leen ak jàmm ci seen rubrique bi ñu tuddee kawteef ngeen koy am ay bi si nekk fii ci Atlantique FM euh, ci émission bu mag bii ñuy wax brise matinale di ci ànd ak seen xarit seen soppee seen doomu ndey Assane Dia alias Azou le Pro mhm. mbokk yi tey seen euh, rubrique bi di kawteef nag dañu bëgg def rek taxaw seetlu daal di waxtaane coow li nga xamante ne ni dafa dal ci famille bii ñuy wax famille Mbayeen di famille ki nga xamante ni Ablaye Mbaye mhm. mu nekk coowal suuf nekk coowal kër mhm. ndax euh, moom mii di artiste bii di Ablaye mbay ci ay mbébétam ci ba muy dund mhm. daf ci bokkoon ñaar yoo xamante ni fu mu mësaan a toog daf ko daan wax ñëpp di ko dégg muy wax ni yàlla na ma yàlla dimbali ba ma am kër tabax ko dëkkal fa sama jur wu jigéen waaye itam yàlla na ma yàlla dimbali ba ma am paas makk jox ko sama wayjur wu jigéen yàlla sunu boroom dogal lu jiitu yooyee di antu mu jël ko ci bi muy nekk ndaw famille doon dund ay jafe-jafe yu méttee métti waaye bërki démb mu am lu tiis loo xamante ne ni dal na ci seen kaw du ñàkk rek ñu ànd ak sunu technicien dem teewlu ji kàddu yi way juróom mu jigéen ak ki nga xamante ne ni rakkam bu góor la bu ñu noppee daal di dellusiwaat gën ko yaatal sista Eva. ayca ñu ànd ak technicien bi ñëwaat. di ñaan di ñaan yàlla rek tàll yàlla sama loxo rek di ñaan dimbal rek fu ma nekk sama njaboot ndax bëgguma taxawal ma ñoom xaw ma ko mosuma sëfër mel ni déglu nañu élément bi. Mhm. ñoo ko déggandoo muy uh-huh. ay kàddu yu doy waar euh, kàddu yi nga xamante ne ni kii di way juróom wu jigéen euh, moo ko daal di yëkkati di fésal ak di wane naqar goo xamante ne ni am na ko euh, ci ginnaaw bi ko kii di ab Ablaye mbay dëddoo coow li nag moo di bi muy dund dafa am benn terrain boo xam ne daf ko jëndoon daf ko jëndoon fële ca cité gàddaay mhm. bi mu ko jëndee. terrain la woon mu mhm. bàyyi ko noonu xëy na amul woon doole jum ko mën a tabaxee mhm. terrain bi bi mu koy jënd mi ngi koy jënd ci ay côté cinq jàpp 2006 mhm. bi ñu demee ba ay côté 2007 yooyu mu am benn liggéey boo xam ne dañ ko waroon liggéey ko foofee ca côté cité Gàddaay mu nekkoon benn canalisation bu ñu waroon liggéey côté boobu ci jamono yi euh, ki nga xamante ni moo nekkoon Abdoulaye Wade. Mhm. ñu waxoon ni kër yi nga xam ni dafa jege canal bi. Mhm. dañu leen di yëkkati mais dañu leen di euh, dédommager dañ leen di jox alal. Mhm. ci noonee ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo yoroon yooyu le projet ñu wax ni. képp koo xam ni terrain nu nga yor maanaam foo xam ni defuloo fa dara. doo bokk ci ni ñuy indemniser. képp koo xamante ne ni sa terrain ployé nga fa defoon nga xam ne nit dëkku fa. Mm. doo bokk tamit ci ni ñuy indemniser. Mm. ca jamono boobu ñoom seen kër terrain nii la woon donc kenn indemniser wu leen kenn joxu leen xaalis kon ñoom ñoo continuer woon moom seen terrain ba léegi. Mm-hmm. léegi nag fii nga xamante ne nii fii la ñu loué woon ci dakaar ki nga xam ne moo leen loué woon kër gi daf leen a jox délai pour ñu war faa génn. ci noonu ñu boole woon li ñu am muy néew ak mu bari ñu ni dañuy tabax kër googee ngir bu eggee ñu mën faa dem dëkki su ko defee mu nekk rêve boo xam ne ab lay mbay amoon na ko ci bi muy dund mu mën a réaliser wu bi ñu jëlee seen alal ju bari ndax yaay ji wax na ci biir élément bi ni fondation bi rek jël na trois millions donc kër gi yëkkati nañu ko ba mu àgg ci séenage kon xam nga ni def nañ fa alal ju baree baree bari ñu toog rek un beau jour instant bi maçon yi di liggéey ci kër gi waa Descos fekk leen fa du këyit gu nu bind du convocation du avertissement du dara ñu ñëw daaneel tabax bi maçon yi doon liggéey nit ku investir ay millions am nga xëy un bon jour rek indi say say bulldozer daaneel kër gi mhm. ci loo xamante ne nii fi nga ko teg mooy que ni waroo leen a tabax chef de quartier bi ci jëmi boppam yëkkati na ay kàddu xamal leen ni ba ngeen dee wax wàllu indemnisation ñi da ngeen woon képp ku yor terrain du ngeen ko indemniser ñii jamono boobu seen terrain terrain nuy la woon mhm. donc ki nga xamante ne ni moo di gàllaay euh, nekk fële ca info réew mi xam naa sax bu fekkoon ne élément bi continué na dinañ ay kàddoom ndax kenn mësul woon xalaat sax man ba ci man mi di toog ak yow euh, que ni moom rakk la ci Ablaye Mbaye mhm. gàllaay ñu koy nuyu au passage di ko di ko technicien bi euh, Azou ay ba tey ba tey mën nañu indil parti gàllaay mi nga xamante ni sunu naataangoo la nekk fële ca info réew mi mu daal ci gën a indi ay leeral ci ci loolu d'accord waaw euh, salaamaaleykum mbokk internet yi mel na ni jëmm ji xàmmee nañ ko Galaye Talibé Bamba bi nekkoon bi nekk info réew euh, tey nag dina bari ñu xamante ni dañ am surprise comme man ak Ablaye Mbaye ñoo bokk ndey ak baay sama yaay moo toog nii war nañoo mën a teg convocation convoqué ñu loolu moo waroon a nekk la moindre des choses ndax itam nag kërug jàmbur gu mu nekk di tabax jamono bi ngay ñëw yaa ngi fekk maçon yi ak brique yi ak suuf yi ak béton ba ak lépp nga tege balaa ngay daaneel wax dëgg yàlla waroon ngaa mën a woo seeni borom ñu ñëw fekkee waroon ngaa mën a woo seeni borom ñu ñëw teew wala sax nga jox leen convocation ndax itam nag dëkk bu am yoon la ñu nekk xëy na nag duñu fi nekk naan diw moo am dëgg wala diw moo am dëgg ndax xëy na suñu xam ci wàllu yoon bi ñuy lancé daal mooy képp koo xamante ne nii mën nga ci lii dara. Mm-hmm. nga jug taxaw ci def ci sa kéemt laayal kàttan ndax itam defe naa famille bii di famille feu Ablaye Mbaye mm-hmm. ku leen yokkul. waroo leen a wàññi. képp ku leen mënta jàppale waroo au moins fekk la ñu am yaxantu ko akus néew di ko def ci seenu kër pour mën caa dëkki mën a mm-hmm. génn ci location nga ñëw di ko daaneel wax dëgg yàlla acte bi ñaaw na ba fa ñaaw yow yem Sister Eva. di ko ñaawlu rek euh, azu vraiment di ànd ak ñoom ci nakar bi nga xamante ne moom la ñu déggandoo ak euh, jur yi. Mm-hmm. ak ki nga xamante ne aussi mooy frère am. Mm-hmm. muy loo xamante ne vraiment dañuy dénk rek képp koo xamante ne autorité nga. wala ngay bonne volonté mhm. nga taxaw ci jappalé njabot gi ndax du du du ko xamantene ke du du ku ku tuti dal effectivement ndax euh, abdoulaye ablaye mbay gis nañ limu liggey ci euh, sénégal ci mhm. musique sénégalaise mhm. vraiment muy ko xamant dafa dëddu aduna euh xamna ne ci dundam doonu ko neex donc ni ni ni lepp luñu ngir teru njaboot rawati na yaay bi même bu du won sax euh, ablaye mbay mais bi wax rek dégg ko ni mu waxee xamul woon jafe-jafe donc nanu fexe rek ba teggil ko ko mu mm. nekk ci jàmm ak njabootam effectivement di lancé waat tamit beneen appel rek euh, mbokk yi artistam yi mm-hmm. ñi nga xamante ni nii Ablaye bi muy dund jotoon na am lu mu siq ak ñoom Mm-hmm. muy relation bu rafet. muy ci mm-hmm. walu walu ay duo musical ku ci mel Youssou Ndour. Mm-hmm. ndax bokku na ci palmarèsu Ablaye Mbaye way wi gëna marqué sénégalais moy bi nga xamné and nako ak Youssou Ndour. donc en tant que porteur de voix daf ñuy xawa toucher touti tuuti bu ñu gisee way juróom mu jigen tok di wax ni boobee ba légui ki di pap Mayel Diop la xam fa sama beut xonq dama koy gis. bi muy lim. amul ci benn artiste boo xamante ni yaay ji limaale na la loolu nag dafay am leneen lu muy wundu donc artist yi nga xam ni ñoom la yàlla dénk wërsëg ku ci mel ni ñoom Youssou Ndour ku ci mel ni ñoom Wally Seck ak ñu ni mel ñoom Pape Diouf ak yooyee ah, ñi ngi leen di tàllal suñuy loxo di leen ñaan nañu dem ñu jàppale famille Ablaye Mbaye ñu def ko pour sa mémoire waaye tamit ñu def ko ndax way juram ndax wax dëgg yàlla Ablaye mérito na lu mel noonu comme ni mu ko waxee rek rêve yi nga xam ni moom la amoon ci bi muy dund mooy tabaxal yaayam kër mooy yóbbu yaayam màkk Pape Mayel uut na ko ci benn bi ndax yóbbul na ko yaayam màkk mhm. donc uut na ko ci boobu mhm. beneen bi ci des na ko artiste yëpp jàppandoo sot ko bu ci mhm. kenn ku ci nekk dugalee sa dërëm pour ñu tabaxal yaayu Ablaye mbey kër loolu warul jafe artiste yi nekk biir Sénégal Sista Eva dedet muy lu am solo azu mhm. du ñàkk di nga ñu toppal euh, mbir mi inshallah xool fa muy mujjee mhm. euh, ndax doléance wala jafe-jafe bi saafaraw na mhm. waxtu wi da euh, job na asu effectivement ñu bàyyi la nga tàggatoo ko ay di tàgguwaat mbokki auditeurs yi bu baax a baax rek di leen wax ni mbégte contentement la ñuy àndal ay bi nekk di partager ak ñoom li nga xamante ni moo di brise matinale yow itam di am mbégte saa su nekk di toog di jàkkaarloo ak yow di jégaloo si comme ni nga ko waxee

ak bépp auditeur di am mbégte ak contentement de leen servir chaque matin si steva ngi naan fes ba suba incha ci beneen numéro brise matinale fii amaanillah Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage. Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29.